axusu billahi min asheytaani irrajim bismillahi irrahmaani irrahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki téléspectateurs yi nga xam ne yéenay bàyyi xel suñu télévision ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di rafetlu ànd ngeen di ànd ak ñun waaye di am mbégte lool nag ci barab bi ñu leen di nuyoo muy daaray mu diin waaye di am mbégte itam ci ki nga xam ne tey jii moom la ñu fas yéene seqal jataay mu di Serigne Moustapha Mbaye Sam euh, kon sëriñ bi euh, gannaaw bu ñu la nuyoo gërëm la rafetlu itam ànd gi nga ànd ak ñun gërëm Serigne Jibril Khoule mi nga xam ne moom la àndal ñëw fi euh, nuyoo bi la sof laaj muy cant googu nga xam ne moom la Serigne Touba daan ko def itam ak njaboot itam nekk ci loolu cant googu lañ bëgg nga dikkal ñu ci. waaye comme ni nga ko baaxoo defee rek sukkandiku ko ci alxuraanu karim waaye mbind mi nga xam ne daf koo bind ngir firndeel ko ak ni ko daan defee kon ñu bàyyi Serigne Moustapha mu nuyoo waaye dugg ci laaj bu njëkk boobu nga xam ne euh, moom la ñu joyal ci moom aoudu billahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi lasi li xaasa wa ma kunna allah wasalaatu wasalaam ala alhaadi al amin sayidina wa muhammadin il wa ala alihi ashaabihi wa man tabiim bi ihsaan ila yawmi sëriñ Mor ñu ngi lay fay nuyoo di la ndokkeel ci weer wu tedd wu màgg wii ñu nekk saxru safar al mubarak di ci ndokkeel al alamul islamiya waaye di ci ndokkeel al xalifatul am les taifatul muridiya di ndokkeel kilifa ya nga xam ni ñoom nga bàyyi ko di ndokkeel sa technicien bi nga àndal ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Mustafa alayhi salaam noonu nga ko waxe moo di Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu sant gi muy sant sunu borom rabbi situ alaatu sunu borom nii la in zakartum la asidannakum képp kenn ci yéen ko sant man yàlla duma ma deñ mukk di la dolli moom nag mu sant yàlla nu nekk sant ku fu nekk ci li xalimaam di yuut ci ay jëfam ci ay waxam. ñu waxtaanoon fi daaw benn mawduux boo xam ni dañ ko tudde woon azukrul azim inda seyxil xadim cant gu kawe gu màgg ci sëñ Tuuba te sëñ Tuuba ni karaamati xëttu yët yi sama karaama mooy li ma bind ak sama loxo karaamati xëttu yët yi loolu moo tax ñu dellu ci xasidaam yi dellu ci alquran gis ni muy sant suñ boroom tabaaraka wa taala ni mu dëppoo ak ni yonent yi alayhimu salaam doon sant seen borom yemoon ci waxtaanu daaw wa fam doon sante boromam naan ko askuruhu zukran ladina saribo min asbihi walil jinaani xaribo maa ngi sant sama borom cant gu mel ni gi ko yonent yi alayhimu salaam doon sant mu nu yonent yi alayhimu salaam lu taxoon ñu doon santu seen borom mooy sun borom tabaraka wa taala daf li na nandal ca leeruk nuurul jalaali wa nuurul jamaali dafa am lu ñuy tuddee ci ulamaawu tasawuf mu xaqiquuna yi dañuy wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa mi nga xam ni mooy buntu yàlla ci kaw suuf dafa am lu ñuy tuddee xadaratul ahmadiya ak xadaratul muhammadiya bu la neexee nga ni alxaqiqatul muhammadiya ak alxaqiqatul ahmadiya ñaari xadara yooyu dafa am xadara boo xam ni amul benn jaam bu yàlla bind bu xam nam deme dëgg dëgg dëgg muy xadara bi ñu tuddee alxadaratul ahmadiya nuurul jalaali wa nuurul jamaali bu faccee fa suñ borom day sotti ko ci alxadaratul ahmadiya mu segg ko ba mu oyof mu door ko wàcce ci alxadaratul muhammadiya lenn ci wàlli ak lenn ci malaaka yi foofa la ñuy demee tànqi fa leeruk seen borom naan ko sëñ Tuubaa nag ni moom motif bi tax mu sant suñu borom mooy fa yonent yi di naane te mooy alxaqiqatul ahmadiya fa la ko yàlla nandale ca leer googa ba tax mu wax ni ku xoosu ko bi xaasa bu saaratin yow yàlla yaa ma nandal ca kaasi leer ya nga daan nandale yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne moo tax nag mu sant boromam dëgg-dëggi sant mu del waxaat ni dhukuri bi aqlaami wa qalbi wa jussati liman kaana li bil juudi wa huwa sakuri maa ngi sant suñu borom cantug jëf ndax sëñ Mor a sukuru mooy cantuk jëf alhamdu mooy cantuk xol boo gisee bu la nit defalee lu baax doo ko mën a wax mukk ni ko am dan lakka waaye da nga ko naan sukkuran lakka lu tax parce que ay acte la def jëmee ci yow nga ni ko sukkuran lakka waaye alhamdu moom boo ko déggee rek xamal ni suñu borom a ko yeeyoo tabaaraka wa taala kenn yeewu ko kudul moom mu ne nag moom mi ngi sant boromam cantu acte cantug jëf ci xalimaam mi ngi sant boromam cantu xol muy alhamdu waaye mi ngi sant am ci yaramam muy arakaat yi muy def mu ni suñ borom moom nga xam ni mooy aji tabe ji moo tabe ñeel ma man sañ Touba kon sëñ Touba boo dee jàng xaside yi saa bu waxee ak sant dana wax moti bi tax mu sant li ko yàlla di defal ci xëyti xiwal daañu ko wax ci kanam mu del waxaat ni lillahi hamdi wa kaw ala kawni qaddima man bihi yubdil ola maa ngi sant suñ borom tabaraka ko taala mu ni suñu borom moom nga xam ne cantu xol ak cantu jëf laa koy cante lan laa koy cante motif bi mooy def gi ma def ma nekk jëwri ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom nga xam ne suñu borom dafa yëkkati ay darajaam ba mu faw xa képp ku dul moom mu deloo xam ne lakka dhukuriya bila kufraani yaa man amaaniya anil xusraani sama cantu jëf ñeel na suñu borom mu ni ginnaaw bi ma ko sante ba noppi nag amatul benn jamono boo xam ni danaa def li ñuy tuddee xarab baatu al moor léeg-léegi day firi xarab al kufru léeg-léeg mu firi weddi al kufru léeg mu firi nëbb dëgg waaye al kufru léeg sax mu firi mbay loolu ñi jàng grammaire xëy na ñoom ñoo cay dellu mu ne nag mi ngi sant borom te dootul xarab boofu al kufru lim fiy tekki mooy xarab mu ne mi ngi sant yàlla te dootu ko xarab mukk mukk ñu ne ko lu tax nga di ko sant mu ne moom mooy ki nga xam ni moo ma fegal lépp luy perte nga perte nga mooy lan mooy li ñuy jàngale ci majalis yi lax laxdari yu moo di wala fi di ko wax kutus mooy nit koo xam ne dafa dajale aw yiw ba mu fees dell diggante asamaan ak suuf suñ borom jël yiw wa di ko fayee di ko fayee ba deseetul dara dara dara dara kooku mooy alxusraan mu ne nag mi ngi sant yàlla mi ko musal ci perte nga mu dellu waxaat ne laka zukuriya alal binaa yi yaaman amaaniya anil xinaa yi maa ngi sant suñ borom tabaraka wa taala ci bépp kër guñ may askanale ñu ko lu tax ngay sant mu ni motif bi mooy suñ borom moom moo dox sama digganteeg coona alal xalaali yaa maa iyal imlaaxi wa dalaali cantuk jëf ñeel na suñ borom lu tax nga sant ko mu ni suñ borom moomu nga xam ni moo ma wërsëgale yu dagan yi yemu ca moom a faral lépp luy imlaax imlaax mooy ñàkk moo xam ñàkkuk saahir moo xam ñàkkuk baatin mu ni suñ borom moo dox sama digganteeg réer nga xam ne moom defatul dara ci tatone lépp lu muy def yàqin la koy defee ndax suñ borom deñal na ko ci ak réer mu ne lakka zukuriya ala awtaani yaa man amaaniya ani seytaane sama cant xol sama cantu jëf ñeel na suñu borom ci bépp dëkk buñ may askanale mu ni suñu borom moomu moo faral moo ma daqal moo soril seytaane njubla njublaa kon bi soril googu suñu borom soril seytaane te doomu aadama bu yàlla bind am na ci ci seytaane daañu ko wax ci kanam noonu la ko suñu borom dajale mboolem yiw yëpp jox ko mu ne lakka dhukuur ya alal xuyuuri fi sirri wal alani wa duyuuri sama cant jëf sama cantu xol ñeel na sunu borom mi nga xam ne moo dajale fu aw yiw nekk teg ci sama loxo ci nëbbu ak ci feeñ mu delu xam ne lakka dhukuur ya alal kitaaba yaa munsilan waxabali kitaaba nee na maa ngi sant suñu borom bu baax ñu ni ko lu tax ngay sant mu ne xanaa suñu borom moom nga xam ne moo jëloon alquran wàcce ko ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo jëlaat alquran may ma ko man sëñ Tuubaa gis nga am na foo xam ne nee na malakanil qur'ana tamlikan yëddoom suñu borom moom lu ne ma alquran moom gu sax mu ne suñu borom mi wàcce woon alquran ci muhammad suñu borom moomu mooma mayaat alquran man sëñ Tuuba mu ne motif bi moo loola a ma di ko sant mu del waxaat ne lakka zukuriya ala kulli sanna yaa man taxala an manaamin wa sinna sant ñeel na suñu borom ci lu nëbb ak ci lu feeñ at mu nekk danaa saxal sant suñu borom ñu ni ko lu tax mu ni suñu borom moom nga xam ni mooy aji kawe ji te suñu borom moom mooy ki nga xam ne nii sori na gémmintu waxumaa di nelaw mu ne lakka dhukuriya bil intixaa yi yaaman lahu sayriya soo intixaa yi sant ñeel na sama borom ñu ne ko motif bu tax ngay sant mu ni suñu borom mi nga xam ni moo jeexal sama tukki nga xam ni ba ko nasaraan bi yóbboo ci géej gi mu daj fa lu mburu dajul ci taal ba yàlla ni tukki bi jeex na mu ne ci loolu lay sant yàlla subhaanahu wa taala tukki boobu mu tukki te saaligut bàyyiwu fa benn asaar boo xam ne buñ ko nettalee ay taalibeem di wakkum ndong suñ borom musal na ko ci loolu mu loolu moo tax muy sant suñ borom ni lakka zukur ya fi daari salaam wa fi tuuba bi sikkirin xakimin xat nafa darara maa ngi sant suñ borom ci sama dëkk bi ñuy wax daaru salaam di sant sama borom ci sama dëkk bi ñuy wax tuuba ñu ne ko lu tax mu ni yàlla moom nga xam ni téeréem bu tedd boobu di alquran ma saxoo ko guddi ak bëccëg ci la ma yàlla dàqare lépp luy lor mu ni lakka zukran laa kufraana baxdahu allah ma anxamta bihi mi ma laa yu xaddu maa ngi sant suñu borom cant goo xam ne nii xarab dootu ca ko mukk wala xarab dootu ca topp mukk mukk gannaaw ba ñu ne ko ci lan ngay sant yàlla mu ne xanaa xiiwal yim ma defal ba kenn mënu ko konte suñu borom wax na ci alquran ni wa in taxudu nixmatallahi la tuxsuha yàlla defal na leen ci ay xeeti xiiwal ak i xeeti barke ki tiraanga yoo xam ni bu ko doon jéem a konte du ngeen ko man yonent sa alquran wax ko ci alquran ni ko saa baaraam ni ko waama bi nixmati rabbika faadis bu ma la ma sant moom suñ tubaa mi ngi sant yàlla ci xéewal yi ko yàlla defal nga xam ne mënu koo konte moo tax mu ne najaytani min makri ahlil makri fa lakka min ya wa dawaamu sukkuri mu ne man suñ tubaa maa ngi sant sama borom cantu xol ak cantu jëf najayta nii min daf ne najayta nii min makkari ahlil makkari fa lakk min ne dawaa ma sukkari maa ngi sant suñu borom cant goo xam ne cant guy sax la ñu ni ko ah, ban motif moo tax ngay sant mu ne xanaa musal gi musal ci pexekat yi ak seeni pexe kenn ku ne xam na ni fexeel nañ ko guddi fexeel ko bëccëg suñu borom musal ko ci pexe yooyu mu ni motif bi tax muy sant yàlla moo ko musal ci pexe gaañooñee nga xam ne suñu borom mooy musale waa kon bi radiallahu taala anhu borom tabaraka wa daa wax ci alquran ni ya ayyuha alladina amanu kulu min atayibaati ma rasaxnaakum waskuru lillahi in kuntum iyaahu tahbudun ca suratul baqara suñu borom daf ni yéen ñi wax ni gëm ngeen yàlla na ngeen di sant seen borom ginnaaw bu ngeen jëfandikoo yu teey yi na ngeen di consommer yu teey yi leen yàlla jox bu ngeen ci jogee ngeen sant ko bu fekkee ni moom ngeen di jaamu baatu tayib bul ko jàppe mukk rek lu ñuy lekk lu ñuy naan doomu aadama dana nekk tayib jëfi doomu aadama dana nekk tayib mu ne nag yow mi nga xam ne yaa ngi consommer lu tey loolu nga xam ne man yàlla maa la ko wërsëgal ndax léeg-léeg yàlla wërsëgal jaam bi lu teeyul mu ne lu tey li ma la wërsëgal nanga ma ciy sant cant gu kawe bu fekkente ni man ngay jaamu mu bokk ci ak tayibaat yi ñu yàlla wërsëgal muy sëñ Tuubaa radiyallahu nga xam ne waxuma la moom ci boppam waaye lum laal rek loola teey lum xool loola barkeel lum xool loola teey sant yàlla léeg-léegi dangay dégg ci réseau yi walla nit ñi daal ñi wax naan dajale mbooloo fi barab di sant yàlla loolu bi daala nangam nangam xaddis saxalu ko waaye yooyu yëpp ay wax rek la dañ dul nangoo tudd xaddis yi ko wax rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam siñ moor moo mas a jóg wenn benn bis di doxantu di doxantu di doxantu ba yàgg mu ne yem ci mbooloom saxaaba yu toog mu gis leen ñuy ngun nguni ak a déyante mbooloom saxaaba laa de ña ngay toog di waxtaan di ngun nguni di déyante sallallahu alayhi wa waaxu ba ñëw neen waaye yéen lu leen tax a toog fii lu leen tax a dajaloo fii ñu ne ko ñun de fii li ñu fi tax a daje du dara lu dul tudd yàlla ak sant yàlla ci xéewal yim ñu defal ci lislaam orientation bi mu ñu orienté jëmee ñu ci lislaam dugal gim ñu dugal ci lislaam loolu rek lañ daje fii di sant yàlla ak di ko tudd moo tax ci addis ba mu ni jalas naa la wa nahmaduhu ala ma haddaana wa man na alaynaa bil islaam ñun day lu ñu tax toog fii yow yàlla yow ki yàlla yónni du dara lu dul ni dañuy tudd yàlla di ko sant ci luñ koy sant lu ñu koy tuddee mu ne xanaa jubal gim ñu jubal ci lislaam alquran gis nga ko sànq moom laa ubbee suñ borom day day wax ci alquran gaa ñi nga xam ni lépp lu ñuy def bala ñu ko def sant yàlla mi leen orienté ci njub alhamdulilahi la si haddaana li haasa ñun ñoom nag yàlla mi leen orienté ci njub moom la ñuy sant moo leen taxatoog fii ñoom saxaaba yi ci orientation bi mu leen defal ci lislaam ba tax ñu doon ay jullit bi ñu waxee loolu ñoom saxaaba yi sallallahu alayhi wa sallam lu mu ca teg mu ni leen inna allaha yubaahi bikum malaykatuhu ah yende li ngeen def tax na yàllaa ngi leen di puukarewoo ca malaakaam ya yàllaa ngi leen di damoo ca malaakaam ya lu sëñ Tuubaa wax ba xabi yàllaahu kiraamal qura bi baqa yi nabi sara yàllaa nga may puukare woo ca malaakaam yu tedd yu màgg ya mu ne nag te du ma fi dañ mukk di fi des man sëñ Tuubaa doon mbégum yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam lii la ko saxaaba yi wax mu tont leen lii ni leen yéen ñi daje fii ngir sant seen borom ak tudd ko di ko ko suñ borom ak leen di puukari ca malaaka ya beneen bi ci des mooy li tax murid yi war sant mooy li tax julit ñi war a sant julit lu leen yàlla wax ci suñu borom def ni wala qad manna allahu alal muminina is baasa fihim rasulan min anfusihim waaw laqad manna allahu alal muminina is baasa fihim rasulan min anfusihim man yàlla maa terale jullit ñi Muhammad nga xam ne kon jullit ñi ndekete xéewalug yàlla la gu yàlla yenkeewal eh, yonent bi xéewalug yàlla la gu yàlla yenkeewal jullit ñi waaw sëñ Touba nag di xéewalug suñu borom yàlla yenkeewal ko murid yi murid yi war a daje ko sant ku ko bi daal yow la sa ëlli wa gàtt ngeen baal ma ba mel ni man Cheikh Bamba dafa bokk ci min xurmatullah suñu borom dañuy waman yu xaasim xurmatullahi fa huwa xayrun inda rabbihi képp kenn ci yéen koo xam ne li yàlla màggal lu yàlla warmaal mu jox ko war ma ko yàlla jox lu yàlla màggal mu màggal ko na ko yàlla màggale suñu borom ne loolu ku ko def loolooy li gën ci yow kon li muy tekki mooy ku ko defut musiba dal la sallallahu alayhi wa dafa am benn bis mu ànd ak saxaaba yi ñëw makkatal mukaram waaxu ba ca kaaba ga yëkkati loxoom teg ci kaaba gi ni yow kaaba gi ñu tabax te yàlla dong tax ñu tabax la ñu tabax la ma màbb la ñu tabaxaat la ma màbb la ñu tabaxaat la ma màbb la ba muy ñetti yoon moo ma gën a lor benn jullit daan ni gees saxaaba yi ni leen mu xormatul mu'min ahsanu min ormatil kaaba war may jullit bu gëm yàlla moo gën a màgg war may kaaba gi te gis nga kaaba gi war maam ni mu màggee waaye war may jullit bu gëm yàlla dama ni kan moo gën a gëm sëñ Tuubaa suñu borom mi ko bind te moom ko ba mu jaral ko lal ab deram ci géej gi ngir julli mosu su ko dégg fenn ku ci moom benn histoire mosu ko amul kenn ku ko mas a rapporté ni nit julli na ci géej gi ku dul sëñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu kon sëñ Tuubaa mi ngi bokk ci xurmaatullah yooyu mooy ñi yàlla warmaal te ñu war leen a maal bu dee dëkkam bii nga xam ne fi lañ koy defee nga xam ne fi la ñuy sante ana ban dëkk moo gën a nekk warma Tuubaa suñu borom dañuy waman yu xaasim saa'irallaahi fa innaha min taqwal qulubi képp ku fekk pàkk yi yàlla warmaal nga warmaal ko loolu bokk na ci ragal yàlla li wax ni pàkk yi yàlla warmaal bokk na ca màkkatal mukaram madinatul munawara alxudsi yi ak tuuri sina boo demee ci mu xaqiqoone yi bi ñuy werante ci mbirum tuubaa ndax tuubaa ñoom baat bi ñu ngi koy jàng ci téere yi tuubaa lahum usnul mahab te xamaguñ luy mbirum tuubaa boo demee ci al bidaayatu wa ibnu kasir da nga ko gis abul fida mu ni nit yàlla yëpp ñoo doon wër pàkk bu ñuy wax tuuba daj nañ ci lu mburu dajul ci taal ngir bëgg a xam tuuba ñu ni isa mi mujj ñëw alayhi salaatu wasalaam mas naa laaj suñu borom ni ko wamaa tuuba mu ni ko tuuba sajaratun a bi yaddi tuuba day garab la goo xam ne man yàlla maa ko jëmbat ci sama loxo mu xaqiqu nii nag foofu jaar ni dafa am ay pàkki suuf yu ne ci kaw suuf li ñuy tuddee al ardul muqaddas mas naay liir benn téere benn philosophe di wax ni moom xamul al ardul muqaddas lim xam mooy al insaanul muqaddas ma ne ko ah kay al ardul muqaddas am na ni insaanul muqaddas amee dañu nag al insaanul muqaddas bu dëkkee ardul muqaddas xiima ja day gën a yokk waaye al ardul muqaddas am na de ni yàlla amee ay wàlliwam di leen takkal ay garaat ak i maqaama la amee suuf yoo xam ni suñu borom daf leen di takkal ay garaat ak i maqaama muhaqiquna yi dañu ni boo demee sallallahu alayhi wa moo ko nettali ci al isra wal mihraj ñu ni dafa am ci pays suñu borom yi tabaraka wa taala pays boo xam ne barab ba mu nga tudd ba baytul mahmuur baytul mahmuur sallallahu alayhi wa sallam moo wax ci al isra wal mihraj nii bis bu nekk juróom fukki junniy malaaka danañ ñëw wër ko duñ jëlli siwaat ba yowmal xiyaam ñu ni baytul mahmuur nag dafa am juróomi sooroor juróomi sooroor yooyee sooroor bu nekk takk ndeeram dafa tiim benn pàkk ci pàkki suuf yi ñu ni sooroor bu ci gën a gudd ma tiim béréb bu ñuy wax makka ñu baytil xaraam sooral ba ca topp ma nga tiim pàkk bu ñuy wax madinatul munawara takk ndeeram sooralu ñaar ñetteel ba ma nga tiim fu ñuy wax alqudsi yu sooralu ñeenteel ba ma nga tiim tuuri sina fa yàlla waxante woon ak Muusa ñu ni sooral bu ko juróomeel nag ab takk ndeeram ma nga tiim pàkk bu ñuy wax Tuuba ñu ni sooral yoru seenub takk ndeer fépp fu mu tiim bu fa kenn dëkkul woon suñu borom dana yebal ay malaayika yu koy garde far yàlla dogal sañ dëkk dëkkam bii tudde ko Tuuba mu bokk ca Touba googee rafet nañ jot ni Touba gi suñu borom di tudd ci alquran moom la Cheikh Modou Bamba tuddee Toubaam gi suñu borom moo wax ci alquran ni wali kulli ummatin jaal naa man sakan leskuro ismallah man yàlla ca suratul xaj ji man yàlla communauté boo gis wutal naa leen benn bia benn environnement foo xam ne fa la ñuy daje di tudd seen borom di ko jaamu di ko fàttaliku béréb boobu def caa bokk muy béréb boobu sëñ Tuubaa bii nga xam ne ci ndigalal Cheikh Mahamadul Fadal Mbakke radiallahu taala anhu la joxe woon ndigal ni nañ fiy daje di ko fi di ko fi defee ndax bul jàpp mukk ni euh, def ko santaane te teg ko ci bànneex ndax jamono ba muy woo nit ñu di ko fekk si Tuubaa digg nawet la digg nawet kenn amul dara bu ko woote woon jamono yi tereet dañ naan xëy na addiya la bëgg waaye lu mu li tax ma woote ko ci waxtu wii damaa bëgg ñu di ko defale borom fii nii yontu yàlla Ibrahima wootee màkk ci ndigalal suñu borom mas na maa di wax naan màggal gi ñi ko woote waxtu woo xam ne nit mooy na fa mooy fa yanu bàkkaar bi ma ne ko ah xanaa kon Ibrahima mi woote màkkatal mu karama képp ku dem ba màkk mooy fa yàlla Ibrahima la ko yàlla di yan loolu du wax loolu di wax de suñu borom tabaaraka wa taala ci ndigalal Seex du Bamba la Seex Mamadu Faadal wootee ñu daje Tuubaa ndax sallallaahu alayhi wa sallam moo ne al yërmande jooju la Cheikh Modou Fadal di dabu moo tax mu woonu ñu daje Touba ngir sant la fi sëñ Touba boromam tabaaraka wa taala moo tax Cheikh Modou Bamba ni laka dhukuri baxda amdi xaalidi yaa xaaliyan an waladi wa walidi sama cant ñeel na suñu borom cant goo xam ni day sax ba faw xaalidiina fii xaala wax mu ni suñu borom mu kaye moom nga xam ni jombante naag muy am doom waxumaa nag di am waajur mu ne xamittu ilaahi bi sukkuri lahu ala jas bi qalbi li xubbi na si sant naa sama borom cantuk xol ak cantuk jëf ñu ni ko lu tax luy motif bi mu ne xanaa xëcc gi mu xëcc sama xol orienté ko ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne nii mooy laa biire waa kon ba alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne mooy laa biire waa kon bi mu ne askuruhu zukaran ya juuru sayda bisrin walla ya juuru naxwi kayda sant naa ko cant goo xam ni ñod dina ay njariñ ak i ndol leen ci man ak i mu ne waaye nag soril na ma lépp loo xam ne nii loo xam ne santee su ko mooy ay pexe mooy kayda muy pexe kon bi muy saytaanee ki gaayam mu ne xamit mu ne xamdi wa sukkuri li baaxin laa sharika lahu ala mujaawaratil mun ji minal fitan maa ngi sant suñu borom cantu xol ak cantu jëf ñu ni ko luy motif bi mu ne suñu borom mi aji des ji nga xam ne kenn waru koo bokkaale li tax ma di ko sant mooy may gi ma may ma dëkkaale ak moom wax na feneen ni jaawartu laaha bi kitaabihi mu ne may gi ma may ma dëkk ak moom te musal ma ci lépp luy fitna moo tax ma di ko sant mu ne xamdan li rabbi xayri mu rabbi xadrama xalbi bil iqtida cant naa ko cantu xol luy sabab bi mu ne xanaa yàlla mu nga xam ne moo yare waa kon ba ba comme yaru nga defaru ba am li ñuy tuddee xal bu naqaawa te sallallahu alayhi wa sallam nee na suñ borom moo ma yar te rafetal na sama yarin addabani rabbi fa ahsana tahdibi mu ne nag moom mi ngi sant yàlla mi nga xam ne moo yare waa kon bi yàlla moomu moo ko yar orienté ko ñot di xolam jëmee ko ci muy roy yonent bi alayhi salaatu wasalaam te sallallahu alayhi wasallam ko roy mel nga ni ku topp suñu borom rabbi siti wala ku topp mel nga ni ku topp suñu borom rabbi siti wala muy nag mi ngi sant yàlla ci loolu moom mu del waxaat ne lahu dhukuri bila kufuri wa huwa nasiri min ufida sama cant ñeel na ko te dootuma xarab mukk mukk mukk moom mi nga xam ne mooy dimbale waakoon bi del waxaat feneen ni fakartuhu isxasani bi xidmatil maisani saa xidmati fil alani lahu wa fakk wala mi sant naa ko cantuk jëf ñu ne ko lu tax motif bi mooy lan mu ne xanaa jagleel gi ma jagleel ma nekk jëwrinam ci tool bi lislaam bi nga xam ne léegi tool bi moom kuñ dooñati moo la dooñ wala doo am loo bay radiallahu taala anhu mu ne loolu la sant suñu borom motif boobu la ko yàlla defal ba tax mu sant suñu borom rabbi siti wa ala mu ne alhamdulillahi allasi axrajani min yaddi iblis al kasir al fitan ila al huda bi xidmati al kitaabi wa xidmati al muxtaari si sawaabi mu ne maa ngi sant suñu borom cantu xol ak cantu jëf ñu ni ko loo ko sante luy motif bi mu ne xanaa génne gimma génne ci loxoy saytaane génne gimma génne ci loxoy iblis ba mu la génne ci loxoy iblis fan la la jëmee mu ne xanaa mu jëmee ma nag ci loxoy njub ak loxoy texe ci loxoy may liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci téeréem bii di alquran waaye yemuma ca may liggéeyal yonent bi alayhi salatu wasalam mu ne kon ñetti motif yi moo tax may sant suñu borom suñu borom orienté na ma jëmee ma ci njub génne ma ci loxo iblis orienté na ma ci may liggéeyal alquranul karim nekk xaadimam waaye noonu la ma defee ma nekk xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam seytaane képp ku yàlla bind danga am ci moom ab cër boo gisee yonent bi ba mu nekkee ca alima di nàmp samay nopp na ma yàlla baal jibril fekk ko fa daaneel ko xotti dënn bi li ñuy tuddee saqu sadri mooy cër boobu la yàlla doon dindi ci moom ku yàlla bind ku ne rek am nga cër boobu ci seytaane sëñ Tuubaa nag ni yàlla dindee woon cër ba ca rasulillahi sallallahu alayhi wa muy cër ba seytaane amoon ci moom ba mooy tax nit mer wala nit bañ kum wërta bañ wala nit añaane kum wërta añaane wala nit soxar jikko yooyu naccoo di ko yooyu nga xam ni ab cir la bu yàlla def ci jaam bu yàlla bind bu nekk ba tax ñuy soxla woo ku dul yonantu ñu tarbiye la tarqiya la tasfiya la li ñuy tuddee mm, maanaam sayxu tarqiya ak sayxu tarbiya loolu moo ko sabab jikko jooju lay dindi ci yow sëñ baa nag ni yàlla ci boppam man moo ma génne ci loxo iblis iblis amatul ci man ab cir radiyallahu taala wax na ca tund jeewal ni ayaasa minnillaahu inda jeewali iblisa isna daytoo bi awali booba mi ngi wirdu turu yàlla wi ñu wax inna lasi mm, nasalal kitaab wa yatawala saalihin inna waliyallaahu lasi nasalal kitaab wa yatawala saalihin jamono booba loolu la doon wird mun yàlla dox diggam ak iblis ni ko kii moom mënoo ci moom dara inna ibadi laysa laka alim sultaanun ci kii ci sama jaam ñi la bokk inna ibadi laysa laka alim sultaanun Sëñ bokk ci jaam ñu ñi nga xam ne yàlla leen jaamoo ndax bu ne inna ibaadi ñëpp jaami yàlla lañu waaye nag jaam ñim jaamoo la wax nee na seytaane mënu ci dara daa bokk ci jaam ñi yàlla nangu seenu jaam mooy Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu moo tax sallallahu alayhi wa sallam law anna sayaatina yaxumuuna ala qulubi bani aadama la nasaru ila malakoti sama nee na waa jile budul woon ak daw gi seytaane di daw ci biir dereti doomu aadama yi nee na kon ku ci yàlla defal ndimbal ba deret saytaane daw gi muy daw ci biir deret doomu adama ku ci yàlla musaloon nee na boo siggee xool dangay da ngay jàkkaarloog mulkeeg malakoot loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax mu del waxaat moom sëñ Tuubaa ci sant ki muy sant boromam ci lu nëbb ak ci lu feeñ mu ni ci la yàlla deñal ci moom sikk nga xam ne du su def dara ci lu yàqin la ko def kon jëmm jooju ak cantam feeñal na ko ci ay xalimaam feeñal ko ci mbindam feeñal ko ci jëfam maanaam acte yi feeñal na ko ci li tuddee acte waaye feeñal na ko ci intention mooy yéene ak jëf lu ci ni sëñ Tuubaa feeñal na ko ci. waaw jërëjëf euh, sëñ Moustapha ñuy dellu di gërëm sëriñ Jibril Khoule mi nga xam ne moom la ñu àndal di rafetlu liggéeyam bu baax a baax ak mbokk yi nga xam ne ñooy bàyyi xel suñu télévision Touba TV. Euh, ñu leen ni ñu leen ko waxee woon euh, fii ci daara Ihyaa'ul Ulumuddin ñu ànd ak Serigne Moustapha Mbaye Sam gannaaw bi ñu ko fekk see itam di amal ak moom jataay bu am solo di gërëm ci nangu gim ñu nangul jataay bi lépp nag ñu jëmale ko rek ci ak cant waaye sukkandikoo ko ci njàngum njàngaleem Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba sukkandikoo ko itam ci alxuraan ak ni nga xamante ne bi noonu la ko daan defee eh, sëñ Moussa wax nga ko léegi ci ndorteel li muy cant kon day lu suñ borom digle wax nga ko léegi laayin sàkkatum laa asidan ko mu wax ci alxuraanu karim waaye tamit eh, bëri na bayit yoo indi yoo xam ne bayit Serigne Touba la yoo xam ne mi ngi ciy jàngale ak cant wala boog di sant suñ borom waaye nga di ñu itam ci ni nga xam ne eh, wala yi nga xam ne mooy sababu ak cantam cant yu bëri ni mu ko daan defee ak lan moo sabab mu di ko def waaye mel na loo xamante ne bi wax naa ko léegi lu suñ borom digle la ci alxuraan ba tax na moom seriñ Touba ak mbooleem yonent bu fu mu sa jaar rek wala koo xam ne nitu yàlla nga rawatina yi mel ne am na euh, dayoo ak solo suñ joxoon cant am itam fuñ ko tegoon muy lu am solo loo xam ne xam naa boo ci dikkee dana gën a soññaat nag mbokki téléspectateurs yi nga xam ne jamono ji ñu ñuy bàyyi xel. gën a bari ci nitu yàlla yi bu leen yàlla defalee tiraanga wala seen bisu mucc ca la ñuy sant seen borom nit yàlla yi bari bis bi yàlla gaseeg seeni noon bañ muccee ca pexe ya lañ sant sëñ Tuubaa nag moom li dal yonent yi da koo dal mooy ci am nattu lay sante suñu borom nattu bi ko yàlla teg bu nu xoolee yonent bu ñu wax ayoba alayhi salaam yonent yàlla ayoba kenn ku ne xam na fi mu jaar ci nattu ci tiis ci naqar ci balaa moo di Ayoba alayhi salaam yàlla da ko defaloon xiiwal defal ko teraanga defal ko njaboot bi yàlla dogalee loolu Iblis añaane ko ko fekk suñu borom mboolem jëw asamaan mu ngi fay bind di bakk cant gi nga xam ne moom la ko Ayoba di sant naan nihmal abdu innahu awaabun Iblis nag di def fu mu jaar ci jaww yi rek gis suñu borom di ndokkeel Ayoba alayhi salaam ci cant gi mu saxoo di ko sant. Iblis ni waaw suñu borom yow Ayoba alayhi salaam mi nga dëkkee sant rek ba goxee asamaan yi foo jaar ñu bind fa niimal abdu innahu awaabun lu mu la defal mu ne ko ah moom day kon foo ko fekk rek mi ngi may sant mu ne ko Ayoba nu muy def ba du la sant Ayoba li nga ko jox ci teraanga ci barke ci ay tool ci njaboot faaw mu sant la suñu borom ne ko a ah, jàpp nga ni loolaa tax mu di ma sant mu ne ko waaw suñu borom ne ko may naa la kattan nga seeti ko nee ñu Iblis soppaliku ngelaw lu bare bare bare ñëw yàq tool yi. rey njabootu Ayoba alayhi salaam ba des jëmmi Ayoba ak soxnaam nee ñu mu soppaliku nit maanaam jëmmi nit ñëw dajeeg Ayoba alayhi salaam ni ko ay Ayoba yaw li la suñu borom teg moom tiis na ba doy waar lii de di jéggi na dayoo Seydina Ayoba alayhi salaam ni ko ah ci yow de la doy waar waaye man de maa ngi wax alhamdulilahi rabbi alamina nee ñu mu rus. gàcce wu dem ci kanamu sun borom suñu borom nag ah noo fekkee sama jàmba ayoba alayhi salaam mu ne ko ko doy moom de li taxut teewul mu nga dañ di sant rek maanaam lim musiba mi dal ci kawam teewul ma ngay sant suñu borom waaye nag ba tey des na de ndax ma nga ak wérug yaram loolaa tax muy sant mu ne ah, jàpp nga ni ndax wérug yaram gaa tax mu dama sant mu ne ko a ah, waaw waaw wérug yaram gaa tax kay suñu borom ne ko may naa la kàttan nga seeti ko nee ñu ayooba alayhi salaam julli na takkusaan fi mu toog di def ay lawraatam iblis fekk ko fi di ko ëf ngelawal ngelawal tooke di ko ëf ngelawal tooke ba mujj ayooba yaram yépp kada daan walla bokk funki new wi loolu indil ko tawat ba mujj tawat jooju di jeexital ci yaramam ba nit ñi di ko daw nit ñi di ko daw waaye nee ñi loolu lépp ànd mi ngi wax alhamdulilahi rabbi alamina alhamdulilahi rabbi alamina bi loolu amee nag ba ni suñu borom teggee tawat ja alayhi salaam kazalika boo demee ci ku ñuy wax Moussa alayhi salaam li ko suñu borom tegoon ci nattu moom itamit suñu borom nattu na ko ci lu ne jëlee naa diggam ak na waaye lu jiitu lool rek nit ñi dañ koo mbamboon tuumaal ko ci na ma yàlla baal ni moom du góor ba suñu borom teggee tuuma ja mu sant suñu borom nga ñëw ci yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi moom moom fi mu jaar ci ay nattu ak tiis waaye fi mu jaar ci liggéeyal suñu borom rabbi si ala ànd ak loolu lépp nag téewul suñu borom tabaaraka wa taala defal ko ay xeeti teraanga ak xeeti barke ak xeeti yërmande mu tëdd guddi mënta nelaw mu jóg di julli di julli di julli di julli ndax xelam dem na ci xiiwal yi ko yàlla defal ci barke bi ko yàlla defal def ko muy xayru xalqulaahi te dara dara lu ko sabab taxut loolu suñu borom rek la soob mu defal ko ko. bi loolu amee muy julli guddi ba tànk yi di neew yi soxnaam suñu wax sayyidatuna Aïcha radiyallahu taala anha ni ko ma yow xanaa du yaa tax suñu borom naan inna fatahnaa laka fatan mubiinan liyaghfira laka llaahu maa taqaddama min zanbika wa maa ta'akhkhara mu ne ko ah, ko kon looy sonalat sa bopp nii mu ne nekk jaam buy njukkal borom ko sant fu ma toll ci li ma defal ci ay xeeti teraanga moo tax mu ne ko wa maa bi ni'mati rabbika fa haddis kasaalika la mooy bis bi ko yàlla nattoo moom ci la doon sant boromam ndax xam na ne nattu bii mooy sawetaasu xeetu rasulullahi sallallahu alayhi te comme moom mooy jëwriñ yonant bi suñ moor jëwriñ ci tool lu fa sikk ku ñuy wax jëwriñ ci tool lu sikk ci tool bu ko ñuy wax jëwriñ ja mu ni kon nag ginnaaw mooy jëwriñu toolu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moom sowetaasu xeet wi la kon nag dana def le tout pour sowe xeetu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ba ko yàlla nattoo natt bi ba mu demee ba fa natt ba war a jeexee ba war a ñibbisi dañu ko ah nag ma garanté lii de bokk na ci li ma taxoon a tukki mooy sowe xeetu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ical rujuhi ilaa xaw mi sahadatana wal tak fi naa yow ma jam xalqi niiraan nga xam ne sëñ Tuubaa bu ne xaw mi jubluwu ci rek murid yi dong mooy képp koo xam ne nii gëm nga lislaam ci xaw mu sëñ Tuubaa nga bokk radiallahu taala moo tax nag comme sowe taas la yàlla bis bi mu ko nattoo ci la doon sant suñu borom rabbi si taala ak njëlbeenam bi muy doog a jóg ñaan suñu borom daf daan wax naan ya rabbi in axtay in axtayta nii fa sukkuru wa in manaxta fa riddan wa sabru yow suñu borom saa bu ma la laajee nga jox ma ma sant la boo ma xañee ma gërëmte muñ loola ba muy doog a jóg la de ba muy doog a jóg ci la waxe wan ni suñu borom saa boo ma joxee ma sant la bu ma la laajee te joxoo ma ma gërëm te muñ waaye bi mu amee wusool lu mu laajee suñu borom ni ko fabal suñu borom dootu ko gantu ci dara xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yonent yëpp alayhimu salaam suñu borom defal na leen ñaan goo xam ne fuñ ko ñaanee fa saasa rek mu nangu mu ne yonent yëpp dañoo gaawee suñu ñaan fii ci àddina mu ne man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sama ñaan dama ko denc ba yowmal xiyaam te mooy tex ak jaam ñaan googu mu wax ne moom la denc ba yowmal xiyaam ngir tex ak jaam ñi mooy sëñ Touba dellul ci yaa maalikal mulki yaa man jàlla an xawa di irham jami alwara jooje mu doon wax mooy Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu bu ñu xoolee sëñ Touba ñaan yi mu doon ñaan suñu borom bi mu amee wusul lu ci nekk suñu borom da koy defal ni mu ko ñaane ni mu ko ñaane radiallahu taala anhu moo tax mu nii nag suñu borom tabaraka wa taala lahu àllaya dhukru bil aqlaami wal qalbi wal jasadi wal kalaami yow suñu borom maa ngi lay sant cantu xol di la cant ci sama xalima di la sant ci sama xol di la sant ci sama yaram waaye di la sant ci samay wax sallallahu alayhi wa daf ni moom bu jëfee acte bi muy def sant yàlla la bu dee méditer mi ngi xalaat yàlla soo déggee kàddoom day tudd yàlla sëñ Tuubaa way na ko radiallahu taala anhu mu del waxal ni lakka zukur yi am dan daf ni lakk zukur yi abadan wa hamdi yaa xaasimi min xata in wa maa ngi sant suñu borom cant ñeel na suñu borom mi nga xam ni xam nga bu ne abadan mooy cay li ñuy wax loo xam ne amul fu mu yem amul limite mu ni mi ngi sant yàlla cant goo xam ne cantuk caay la waaye cant googu mooy cantuk jëf mu ni noonu la sant yàlla cantu xol goo xam ne cantuk caay la ñu ne ko lan mooy motif bi mu ni xanaa aar gi ma aar ci njuumte waxumaa nag di jëf lu ñu tey dañuy wax ni doomu aadama moom bu dul juum amul sëñ Tuubaa nee na suñu borom ci boppam moo ma aar ci njuumte man du juum radiyallahu taala anhu fu ko doonee ci yonante bi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yonante bi sallallahu alayhi borom moo ne du juum wa maa yantixu anil hawa in huwa illaa wahyun yuuhaa sallallahu alayhi wa sallam du juum lu mu wax maa ko ko wax loo sëñ Tuubaa ni loola yàlla rafaatal na ma ko suñ borom maa ngi koy sant ci defal gi ma defal man sëñ Tuubaa du ma juum mukk mukk mukk mu del waxaat ni lakka allaya zukru min sahbaana wa xabluhu wa baxduhu qurbaana maa ngi sant sama borom ci weer wu ñu wax weeru saxbaan loolu mooy lii li ñu tuddee sikru xaas zikru xaas la rek ci saxbaan jooju mu tudd foofu waaye dégg li mu wax wa qabluhu wa baxduhu maa ngi sant ci saxbaan lu jëkk saxbaan daanaa sant lu jëkk weer yi mujj saxbaan yi daanaa sant maanaam jëkk saxbaan ak gannaaw saxbaan yëpp dama daan sant nga xam ne kon tudd gi mu tudd euh, saxbaan sikkaru xaas rek la waaye ci weer yëpp la saxoo sant suñu borom rabbi siti wa mu del waxaat ne lahu dhukuri abadan ala thuhuri waliya jaada bi shuhuri wa tuhuri sama cant ñeel na suñu borom tabaraka wa taala cant goo xam ne cantuk abadiya la ci mboolem xeeti weer yi sun borom mi nga xam ne moo tabe ci man defar sama saahir defar sama baatin mu dellu waxaat ni allahuma lakka alhamdu hamdan xaalidan maha xuluudika wa lakka alhamdu amdan xoolal ma tëgginu arab bu neex woowu rek mu ni mi ngi sant boromam tabaraka wa taala cant goo xam ni xaalidiina fii xaalay doon abadan mu ni yàlla mi nga xam ne li fi mi ngi béel ci kaw suuf ci ah, ci eh, addina bi ak fudul addina yàlla akuk béelam daal mi ngi ànd ak béelug yàlla googu te xam nga yàlla du fi jóg mukk mi ngi ànd ak béelug yàlla gi di ko cant cantu kol ak cantu làmmiñ radiyallahu taala anhu mu woo ko ci ñaari tur muy tur ba ñuy wax rahmaan ak ba ñuy wax rahim mu ne ya yaa rahmaanu yaa rahimu lakka alhamdu wa lakka dhukru ala dunya wa ala al axira maa ngi sant suñu borom ginnaaw bi ma la wooyee ci sa ne ji da rahmaan loolu mooy amatu naas bi yëpp ci addina bi ñoo ko bokk mu ne waaye nag tudd wañu wax rahim nga xam ne moom jullit ñaa ko moom yow man xiyaam mu ne maa ngi sant ci xiwal gi ma defal ba sama ñoñ fii ci addina seenu tumuranke jeex àllaaxira yow mal xiyaamit seen ak tumuranke jeex mu woo yàlla nag ci ñaari tur yi nga xam ne moo représenté yàlla ci àddina ak tur bi ko représenté ci àllaaxira muy yaa rahmaanu yaa rahimu jooju ci ñaari tur yooyu lay sukkandiku ñaan secret boobu ngir suñu borom musal ñoñam fii ci àddina waaye musal leen fële ci àllaaxira mu ne xeetu cant googu nag ci lay cant cantu xol ak cantu làmmiñ mu ne alhamdulillahi lasi yaradduni ila mahaadin wa yasuunu badani maa ngi sant suñu borom mi nga xam ne moo ma may ma dem ci tukki ba tukki bi jeex ma dellu siwaat ci jàmm salaam mu aar sama yaram ba sama yaram dara si ku ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu ko yàlla wax ci alquran inna lasi farada alayka alquran la radduka ila mahadin sallallahu alayhi wa sallam keroog bi ñu ko génnee màkka muy def riñaanam ma uh, gàddaayam ga jógee màkka jëmmalit mu nawara ba nga xamante ni màkka ak ñi mu ko duggee nekk ndajji xolam mu ne ñu ngi may génne dëkk bi ma gën a bëgg suñu borom dani ko dinaa la fi delloo siwaat nga conquériraat ko ànd ak jàmm ak barke ñu borom xam-xam yu bari sax dañuy wax naan aaya boobu kuy tukki di ko wax dinga dellu si ci jàmm sëñ Tuubaa nag ne maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ma may ma tukki dellu si waat ci jàmm mu aar sama yaram ba dara dara dara dara dara mejju ci mu ne lakka fa lakka alhamdu wa lakka zukuru déggal ma tëgginu arab boobu lakka fa lakka alhamdu wa lakka zukuru ma ko tuddee te mooy ba ma dëkkee di jàng alxuraan di ko tudd fu ma toll te loolu kat defu ma ko ci ay pexe mu ne suñu borom mi nga xam ne mooy borom xéewal yi alxuraan dañuy faskuru nii askurkum waskuru li takk takfuru nii na ngeen may tudd fu ngeen toll te di ma sant te bu leen ma weddi Sëñ Tuubaa boole ñaar yëpp nee na boole na di ko sant ak di ko tudd te du ko weddi mukk mooy du ko xarab mukk mukk mukk mu del waxaat ne ahmaduka wa sukkuruka amdan wa sukkuran daa imay ni ala nixma maa ngi sant suñu borom cant goo xam ni cantu jëf la ak cantu xol mu sant cant du deñ mukk nag daa i may ni lay doon mooy addina ak àllaaxira kon noonu sëñ Tuubaa sant suñu borom te tànqe ko ci yonante yi alayhimu salaam yonante yi noonu lañ doon sant suñu borom tabaaraka wa taala bu ñu xoolee Seydina Nuux alayhi salaam bi ko yàlla tegee nattu nga xam ni ñaan ga nga xam ni moom la ñaanal sax aw xeetam mooy rabbi laa tasal al ardi min al kaafirina dayaaran suñu borom alak ñëpp naka noonu Muusaa xam nga ko ak diggam aw na sëñ Touba nag nattu yàlla teg yonent yi la ko yàlla teg waaye mosta jëfandikoo xalimaam ngir alak xeetam jamono bu nekk daf leen di tiinu ci kanam suñu borom rabbi situ ala lu dul ni léeg-léeg rek suñu borom fiire ko ba yabal ahlu badar ñu ñëw xupp nit ñi ñu dellu gannaaw niki bañ ko bëggee fetal la ca xew niki ba ñu génnee di defe seen entraînement te fekk fa ahlul badar ñu tiital leen ndax booba ñi ngi xatal sañ Touba ba dugal ko ci benn angaar boo xam ni dañ fay tux sikaaraat di fa naan sàngara di fa tëdd seen jabar yi ci kanam sëñ Touba loola tax suñ borom tiital leen ñu daal gaaw génne ko angaar ba bam mu ne yabalee ahlu badar yu mel noonu daana ko def waaye moom li ma li ko taxoon a dikk mooy la yàlla waxoon yonent bi sallallahu a wa sallam wa ma arsalnaaka ila rahmatan lil alamin dama laa yónni ngir nga yërëm mboolem amatu naas bi sëñ Tuubaa nag mooy jëwri ni rasulullah yi ci ab toolam te lu sikk ci tool bi moom lañ ko war a laaj moo tax moom it mu taxaw taxawaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci kaw suuf di sant boromam ci xalimaam ci yaramam ci jëfam ci ay actam ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon def ndax sallallahu alayhi gis nga acte yi doon def ni ci la sant yàlla mooy lan julli ay rakkaa sëñ Tuubaa nag yëpp la boole woon jërëjëf sëñ Moustapha ñu lay gërëm bu baax a baax euh, waxtaan wi Euh, dafa nuru sax lu gàtt na xam naa euh, jaar yoon gu mu jaar yoon waaye tamit bég goo xamante ne bég nañ ci lool liñ ci cëraloon ci wàllu waxtu nag xam naa li ci des bariwul bari na sax xëy na ay bunt yoo xamante ne bi doon nañ ci war a mën a xuus waaye comme ni ñu ko waxee woon léegi rek euh, sabablu nañ ngir ñu amaat yeneen i jataay incha allah bu ko defee lépp rek jëm ci bis bi nga xamante ne bi mooy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar waaye jëm itam ci doxalinu kilifa gu tedd gi nga xamante ne bii euh, moo ko santaane woon daan ko dundal itam mboolem njabootam ànd ca loola di ko defee na mu ko bëggee waaye xam naa dañ lay bàyyi rek nga yëkkati kàddu yu mujj euh, su ko defee ñu tëj jataay bi euh, ndax xam naa ne ay ñaari simili ñetti simili moo ci des waaye ba tey doyuluñu rek ci solos cant ak ni nga xamante ne bii ni nga ko waxee noonu la ko gaa yu baax yi daan defee waaye ku tedd ki nga xamante ne moom saa su ne léppam cant la ni nga ko waxee léegi ndax li ci ëpp solo te am solo lool. mooy eh, koo xam ne nii saa su nekkee ci loo xam ne nuru na ay jafe-jafe eh, bu doon keneen ay jafe-jafe la koy def waaye moom mi koy def ak cant sax xëy na defu ko jafe-jafe day yëkkati cant jëmale ko ci suñu borom yaakaar naa loolu lu am solo la bañ a ba gis loo xam ne bànneex la nga soo ko sant waaye nit ki eh, circonstance wala fu mu mën a nekk circonstance bu mën a nekk rek maanaam tolluwaay mën a nekk rek def ko ak cant yaakaar naa loolu lu am solo la sëñ Moustapha xam nga sant daa bokk ci maqaamaatul yaqin yi asukru daa bokk ci maqamatul yaqin yi ulama aw tasawuf dañ koy limaale boo gisee ku ni maam Thierno Ibra Faty Mbacké radiyallahu taala anhu àggoon na ci daraja jooju ndax nettali nañ ni te ki ma ko jëlee doy na ma mu ni dañ daan def buñ ko nee diw dikk na addina maanaam diw gane na addina mu ni alhamdulilahi rabbil alamina buñ ko nee diw génn addina mu ni alhamdulilahi rabbil alamina kooku mooy maqamatul yaqin nga xam ni àgg na ci daraja yi ngëm fa ngëm mën a yem nga xam ni léegi yàlla lu mu rek ak cant yàlla lay doon si yow li ñuy wax maqaamam rida nga xam ni Cheikh Thierno Ibra Faty Mbacké yeggoon na ci daraja jooju rawatina kon sëriñam bi fu ko tànkee ci sëriñam bi la ko jëlee ab sëriñam a ko ko wàll radiyallahu taala anhuma jamian kon nag xeeti cant yooyu nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa di sant ci natt yi ko yàlla di teg te jëlee ko ci yonanti yi alayhimu salaam mu digal nu nag yàlla defal ko ci xeeti barke ak xeeti teraanga loo xam ne daal gis na ni moom lott na ci sant yàlla mu nañ ko ci santale yàlla ndax yonent yi ma waxoon yëpp kenn ku ne yaa doon sant yàlla personnel moom nag mu bëgg cant gi gën a bari mu ne nañ ko santale yàlla li ci gën a garaaw nag mooy yonent yële cantu akt lañ daan def moom mu boole ñaari cantu acte ak cantu jëf cantu wax bi ci njëkk mooy tudd gi mu tudd bernde xam nga bu sëñ Tuubaa waxoon nañ ko santale yàlla rek te tuddul bernde kum neex sax mën ngaa toggee laax waaye gis nga dafa tudd lan li tàmbalee ci ganaar ba ci gëléem lu ci waay manaam mm-hmm. wala li tàmbalee ci gëléem ba ci ganaar lu waay manaam mm-hmm. kenn ku ne xam na bernde li mën a Seydina Muusa alayhi salaam kii Isa alayhi salaam bi muy laaj yàlla benn muhjisa muhjisa muhjisatu bernde la ko laaj bernde yow suñu borom damaa bëgg nga defal ma bernde benn maayida boo xam ni mosoo koo defal ñu njëkk mosoo ko defal ñu mujj mm-hmm. ñu gis maayida bu bàyyi ko asamaan xeeti bernde yëpp nekk ca li ñuy tuddee jëwful fara ba wàcc ci seen kanam ñu xiwlu ba doyal sëñ Tuubaa nag bernde yooyee lum ci jublu mooy gis na ni bokk na ci xeetu jaamu yàlla yi nit mën a gën a gaawe am ngërëmal yàlla mooy fekk biir bu xiif nga def ca lu reggal borom ba mën a jaamu suñu borom wax na ko ci masaalik nee na benn tibu ñam nga def ko ci biiru ko xiif moo ëpp tabax moo ëpp tuyaaba tabax junniy jumaa wala fi buñ ko daan wax dañ naan ah loolu de aw léebu la ndax buñ nee jinax jee jinax ji toll na ni nag mais bu tollin nag rëy na même bu fekkente ni tollut ni junni jumaa it li suñ wax daal rëy na mooy benn biirub ku xiif benn tibu ñam nga def ko ci biiru ku xiif moo ëpp yool wala moo ëpp tuyaaba ku tabax junniy jumaa mu sant taalibe yi nag ñu fexe ba kon ñuy jox nit ñi ñuy jëfandiku muy bernde ngir ñu bernde yooyu buñ ci noppee ñu reesale ko ci jaamu yàlla képp koo xam ni yàlla dogal na bernde yooyu da nga koo reesale ci am reesale ko ci lu neexul yàlla neexul sëñ Touba da tara trahir da tara yir de waaye bu ñu la berndeelee ba noppi bi nga berndeelee yaram bu noppi ruugi daa xaq demal nga berndeel ruugi ruugi lan mooy berndeem mooy jàng alquran mooy waxtaane sëñ Touba mooy jàng xaside ba keroog màggal gi di jeex lii mooy berndey ruu ruu moom du lekk du naan yaram moo soxla lekk ak naan comme berndeel nga yaram bu noppi nag da nga berndeel ruugi kon ñu ngi di sant bu baax di leen gërëm ci dikk gi ngeen dikk fii di leen ndokkeel di ndokkeel seen kilifa yi ngeen bàyyi ko kon nag ñu ngi leen di sant bu baax di len gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu